going out. You're the good, you're the good, Chers amis fidèles internautes, vous qui avez choisi notre chaîne VIP People TV, s'informer juste et vrai, la chaîne des grands événements, comme ni ma abonnez abonnez-vous, cloche de notification bi ngir vidéo en exclusivité tey nag un numéro scandale du jour scandale du jour dañuy xool lan fi scandale ñu Indiko faram-fàcce le commerçant commerçant a appelé jàppale ni que escroqué lu qui ci 8 millions Maintenant, 8 millions la perte foofu kan lañ ko escroquer manam ci internet souvent man lañ koy wax moytu internet bi internet bi ki commerçant la bo xamanteni million am Sénégal bu metti bi mom la n'y di ñak fofu ci internet ba kan escroquer suñu ci procédure bi nga xamanteni mettre en cause ñaari commerçant yo xamanteni kenn ki mi ngi judd 1983 tuddu Malik sante keneen ko contacté contacté via WhatsApp maanaam ñetti fan bala tabaski bi 2023 bi ñu génn kii di Malik nag dafa commandé woon ay yére yére yi suñ ko estimé toll na ci lu ci ñetti millions malik Mbaye boobu moo commandé kii nga xamante ni ba doon commerçant ay yére lu toll ci bala ñetti fan bala tabaski bi ñu muy atum 2023 ginnaw nak elage bay bu ko promettre ni que daf kay fay cash elage bay xamal ni ko mom mi ngi foofu ca Tambacounda donc dina ko mettre en rapport ak un certain ki tudd Ibou pour ko mu livrer ko li nga xamanteni moy marchandise bi ci circonstances nak la ñaari nit ñi xamanté ñu joxonté rendez-vous fofu ci gare de Dakar ginnaw bi ñu gare de Dakar ki di Ibou mom la la délivrer ben chèque chèque barré la délivrer jox ko ki nga xamanteni moy elage Mbaye après réception Bobu, bu mu jëlee commande ba paré c'est la dem yonam bi ko joxé commande bi ba nopi immédiatement bu mu démé ci banque ba ñi xamal ni que ki à sa grande surprise que compte bi nekul kënt bu crédité manam amul Khalis amul dara depuis Bobu. batay nak ki nga xamante moy malik Ba bi nga xamante il est injoignable Ben plainte la ki nga xamante moy elage El Mbaye bi nga xamante moy commerçant bi ñak huit millions té Malik Ba croque ko si le déposé la plainte fofu ci division d'indication criminelle muy dit. donc batay tey suñu sukkandikoo ci fofu ginnaw bi ñuy appréhender kii nga xamanteni moy Malik Malick Mbaye euh, moom la ñu nax ginnaw lolu c'est la avoué flou wu nga xamanteni moy victime am ginnaaw face à face ak ñi nga xamanteni ñoy enquêteur yi ginnaw lolu nak ci enquêteur yi lañu la ñu ubbi benn réquisition réquisition boobu moo servir Sonatel mu démontrer que. Ben fil bo xamanteni ñi ngi nekk fi ci Dakar si moment yoy nak bi muy passer commande bi donc mise en cause bi dafa admis woon koo xamante dañ ko inculpé pour escroquerie ginaaw lool nak malik Ba mom lañu présenter dembu ki nga xamanteni moy juge flagrant délit de Dakar.

parti civil bi nak suñu sukkandikoo ci mom ben garantie la bo xamanteni dafa concerner ay marchandises bo xamanteni prévenu bi nga xamanteni ni lu mu avancé jàpp na écoulé na daal marchandise bu tollu ci 8 millions. ba tey suñu sukkandikoo ci ki nga xamanteni moy maître ndiogu Ndiaye momit ci khalatam prévenu bi du ken kudul ben commerçant nana il n'est rien d'autre qu'un escroc donc dafa moulé wu ci ben procédure bo xamanteni jamono ji mi ngi koy xaar parquet lolou motax mu créer ben chèque. baare boo xamante ni moom la jox kii nga xamante ni mooy clientam liñ ci mën a jàpp daal kii di commerçant bi di escroqué nañ ko lu toll ci huit millions kan moo ko ko escroqué nag du kenn ku dul kii di Malick Ba benn waay bu ko woo whatsapp ne ko dafa soxla ay yére mu commandé ko ba noppi yow xamoo nit whatsapp xamoo ku nekk ci ginnaaw numéro bi nga yëkkati sa marchandise mu boole la ak benn nit. ñëwul ci sa boutique nga dem ba ci gare ba mu jox la benn chèque barré ba pare nga jox ko marchandise yi ba nga demee fekk compte bi dara nekk fa mooy li may wax toujours en voulant toujours trop gagner on risque toujours de perdre parce que comme commandé na ko daal ay millions la waroon na xool lan moo làqutu ci ginnaaw muy scandale bi ñu leen indil tey ci VIP People TV. jërëjëf If you go, God, don't